ak gestion élus locaux yëpp parce que budget élus locaux yëpp pratiquement budget municipalité yëpp am na benn ligne bu ñu voté woon tuddee bëggoon ko mun na nekk cotisation à l'association des maire du Sénégal ñu jox suggestion tous les maires ñu def virement de crédit voté ko par leur conseil loolu ñu waroon versé ji association des maire du Sénégal nañ ko euh, versé nañ ko revoté ñu versé ko au réseau des élus locaux du Sénégal bi nga xam ne ñoom ci la ñu bokk ñetteel bi mooy li nga xam ne droit la texte yi prévoir ko xam ngeen ni am na luy jóge ci état bi di jaar ci association des maires du Sénégal jamono ji mu nekkoon nag benn association mënoon nañ ko verser waaye tey comme ñaari association la day jaadu la ca war a ñëw ci réseau des élus du Sénégal ñëw ci la war a dem ci association des maires du Sénégal dem ca parce que loolu àq la te bañuñu ci dara ba ci dem ci devant la Cour suprême parce que noonu la war a doxe un élu est un élu et non daa on est sous régime de la liberté d'association nañu xam ni association yooyu du ay institution du loo xam ne loi moo ko imposé liberté d'association la maire bu mu neex sax nga ne bokkuma ci benn association dama bëgg mu leer parce que dañuy jàpp ni léeg-léeg ay institution la comme ni assemblée nationale nekkee institution wala commune bi loi moo ko prévoir déedéet amul benn loi boo xam dafa prévoir ni dañu war a am association bu tudd association des maires du Sénégal liberté d'association la daje nañu sur une base j'allais dire corporatiste daal di créer cette association là état bi reconnaître ko ne nag relation bi laa bugg am ak association bi daal di dugal ci loi yi ne fonds de dotation bi nii lii jóge fii nii lii dina dem ci association des maires de Sénégal donc bu ñu demee ba am ci ñaar ñaar yooyu yépp ku nekk dañu war a xool moo xam ko prorata moo xam leneen ku nekk lañ ko war a jox ci loolu ñu jox ko ko ñetteel bi mooy lépp luy nag kuréel ci international xam ngeen nii les associations des élus dañuy bokk ci ay kuréel defe naa xalifa moom xam na yooyu bu baax spécialiste la ci am na kuréel yoo xam ne ay CG CGLUA am na yoo xam ne réseau africain yi la am na yoo xam ne réseau francophonie la les maires francophones am na am na am na yooyu yëpp nag suñu kuréel dina ci abonné te jàpp naa ni mooy doon kuréel gi ëpp doole gi gën a significatif Sénégal parce que mooy li defoon rek ñoom bi ñu génnee ci élection bi ñu gaawantu yuuxu fépp nag daal di coloré carte bi yëpp marron carte Sénégal ne ñoom gañe nañu waaye waaye ku génn ci élection locale gañe woo Thiès gañe département wu Mbacké gañe woo Rufisque kërmasa woo Géejawaay gañe woo Dakar gañe woo Kaolack gañe woo daanaka sax Pikine ni nga fexe ba écarté liste moo tax waaye suñ ko jëloon ci commune commune d'arrondissement yi gañe woo kooku soo taxawee ni gañe naa élection yi dangay ngay nax sa bopp loolu nag bu génnee ci association maire du Sénégal gëm naa ni euh, squelettu association moo fa des waaye association nekkatu fa ndax même sur l'international respecté nañu lépp nag waaye dañuy xool les communes les plus significatives suñuy organiser tey année prochaine dañuy organiser fii 2023 normalement euh, le le forum mondial de l'économie sociale et solidaire ville de Dakar moo koy organiser forum mondial de l'eau bii ñu jógee gis ngeen njuuj njaaj ñu def ba nangu ko ci ville Dakar mais loolu dootul am ce sera la dernière fois parce que noonu la mbir mi di doxee au niveau international kon ñiy annoncé Sénégalais ni bis niki tey jàppale ni kuréel googu sampu na dina dajale lépp lu ñu am comme élu waaye ubbi na loxoom ci bépp élu boo xam ne jàpp nga ni li doyen Cheikh Gueye di wax nee na association bu baax li mu ci xam mooy champion champion du Sénégal en matière de tàgge semaine bu nekk moom tàgge le grand-père de tel maire et cetera ku jàpp ni nag li nga bëgg ci luy doxal jox jëmmal collectivités local yi parce que dañu war a respecter les collectivités askan bi moo leen wóolu fal leen yaakaar nañ ci seen localité waruñoo jël maire tuuteel ko doydel ko ba maire tekkeetul dara ci réew mi ku yaakaar ni da nga war a bokk ci mouvement boobu di jëmmalaat les élus locaux parce que le développement ça partira de la base pour aller vers le sommet c'est les maires les premiers acteurs les départements les premiers acteurs du développement balaa ngay wax feneen ku gis sa bopp ci loolu nag ubbil nañ la association bi am nga fi sa place ma daaneele nag ci xibaar bi ñu jotandoo ñun ñëpp ni yokk nañu nombre de députés assemblée nationale jóge na cent 165 dem léegi cent 172 kon yokk nañ ci juróom-ñaar ñu wax ni ki fi nekk bi mu nekkee fii ba léegi musul consulter kenn musul concerté wala kenn buy jël décision yi ni mel léeg-léeg ñu dajale nit ñi ne concertation fekk ñoom la ñuy décider décider nañ ko bu yàgg moo tax ñun biñ ñu waxee ci mbirum yokku député Yewwi Askan Wi dafa ne bi muy décider pour des raisons politiciennes mooy inondation am na Kër Massar ci càgganteem moom ci boppam mu dem Kër masaar amu fa solution mu bëgg a lu defal ñooñu mu daal di jël une décision politicienne ne def naa Kër Massar département boobu concerté wuñu laajuñu suñu xalaat waa Kër masaar si boppam laaju leen seen xalaat bi mu demee nag ba ñu war ko jëmmal mu yaakaaroon ni loolu mu def noonu dina tax waa Kër Massar kontaan ba woteel ko mu gañe mu dem foofu ñu duma ko ba sëlëm ko fa ñu ne léegi dañu war a dem élection législative naka lañ koy doxale mu gis ni nombre de député bi ñu am actuellement posé na problème parce que foo def département nag war koo jox un nombre de députés mu bëggoon ñun ñu jël responsabilité ne la ñuy yokk ñu ne ko suñu yoon newu ci ba nga koy def laajooñu débrouiller pour xam nooy def ak say député mu dem ne yokk na léegi nombre de députés yi yokk na ci juróom-ñaar ñu wax Sénégal yëpp ni décision la moom dong du suñu décision waaye nag lañ ci yokk te di ñaan Sénégal yëpp exiger loolu mooy yokk député bi warul tax ñu yokk fukki dërëm ci budget assemblée nationale. parce que budget bi ñu jox assemblée nationale dafa ëpp fi mu toll nii li ma leen di wax dama koo xam ndax député la. gisuma njëriñ bu assemblée nationale jëriñ Sénégal ci ni muy doxee ci actuellement nii ba ñu war koo jox ay milliards et milliards député boo kii budget boo xam ne ñoom ñu yor majorité di ay député séddoo lañu fa nekke subaak ngoon séddoo li may wax nag mun nañ ko démontrer tey li ñuy yokk ci peyooru député yi saa yu Moustapha Niasse di fay député yi jël deux cent mille yokk ci enveloppe 200 millions yooyu boo ko multiplié woon cent par 165 députés 33 millions la 33 millions mënoon na mënoon na créer 25 députés yu bees ñu leen di fay chacun 1 te duñu yokk enveloppe bi kon foo yokk 7 députés warul mën a justifier nga ne maa ngi yokki enveloppe bi sénégalais yi dañoo sonn xaalisu réew mi dañ ko yóbbu ci ci tabax école yi ci utal ndaw ñi liggéey. ak ci yu am fulla waaye di fay ay politiciens rek yokk fay ay politiciens ñu nekk assemblée di tàccu naan ko aayewal sa moome suñu Macky Sall waxoon nañu wote sax bu kenn noyyeeti nañ ko wote su dee loolu rek fukki dërëm waruñu ko yokk ci budget assemblée nationale te loolu sénégalais yi ñoo ko war a njëkk a yokk sept député warul tax ñu yokk ay milliards ci député assemblée nationale naan dañuy jënd ay katkat yu bees dañuy yokk carburant bi dañuy yokk lii dañuy yokk lii lii mooy position bi Askan Wi parce que ni ñu wax gis nga réew bu doolee ñàkk doole dañuy sakkanal li mu yor nun xam nañ ni coalition coalition la ñu suñu doole bariwul moo tax ñu sakkanal ba ko ba def séminaire boo xam ne dikkewuñu sax cent mille francs te peut suñ ko yóbbuwoon feneen ak feneen wala am na nuñ ko doon defee mu dikkee ñu huit millions noonu la ñu war a yore réew lañ ciy génne ci bénéfice nag di dugal ko ci njëriñ loolu daal la ñu bëggoon wax di lancé un appel nag ci état bi ndax mairie Kër Massar surtout bâtiment